ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alayka tim ka mangala acca mbokk yi ñi am mbégte kontaante si yéen ñi ñuy suivre ci li Sénégal TV comme ni ñu koy defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li ci biir moo waral tey ñu ñu set ki nga xam te mooy grand champion di ndaanaan di Gabar Singh bokku ci lamb ñu gëj ko gis gëj ko déggé ba ba légui nak xamnu won ci lu mu nekk mais nak mi ngi jëm ci wacca jëm ci combat bu am solo muy le 20 digganteem ak Ahmed Demba yi dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñu suivre su ko défé ñu dugg ci waxtaan bi mbeur ma ngi lay nuyu de la siyaar. wa ma ngi lay nuyu yeen wa lit Sénégal. Mhm. TV di len nuyu yeen ñep di nuyu Sénégal yep di nuyu akhlu lamb mhm. di nuyu sama kilafa Amadou hot diko nuyu diko wo ci combat bi it. Mhm diko ci wo bu baakha baakha baakha baakha baakha a baax a ok Gabar sing ci bir lamb avant tout tour Gabar sing lan moko indi wa ah, Gabar sing yag na ci man mm-hmm. wax bima nekké xalé xale waaw mm-hmm. ah, xale laa woon boo xam ne waaw ah. macha allah mm-hmm. karo gi bari na wa xawon xawoon naa endo ko hmm xawon ngon nduróog Gabar sing ah gis nga sumu jumlé kon tour boobu moy tur bi ñëw ci làmb ji bi doon ñëw ci làmb ji. Euh, Gabar def na ñaari combat. bari na bari na. Mhm. Hmm. combat yi boo ma dee xaymaal victoire yi toll na comme ñaata. victoire itam bari na ah. bari na victoire yi moom bari na. Hmm. comme kan nga daan ci làmb ku làmb xam. Ah, boo jëlee ku ci mel ni. brise de mer nga jël ku ci mel ni. Kayre de nga jël ko ci melni ni Jamceer yi Jamceer nga jël ko ci melni King Kong King Kong bu fas malam ñaan yi mhm, micro bi ñom malam ñaan ak ñom hotel Dior xam mhm. ah nga ay Guinée Malien extra extra xam nga mhm. atin la dal defet ñaan la tollu ben ben defet muy kan Bekaytin Bekaytin bu keur Massar moom moo daan ci lamb ak ñi nga daan ci lamb ñep mais mhm. li jaxal gaay moy gabar lan moy problème ci bir lamb lu sa problème ci bir lamb kon man waaw xawma problème ci bir lamb hmm je crois yalla ko dogalé ni rek ñi gis nga bërek ay ndaana daan bërek ay champion daan len mais mhm. batay gabar fimu taxaw rek fa la taxaw ah waaw suñu borom lepp suñu borom la waaw hmm. ah lepp suñu borom la. waaw ñu gis nga rar ci lamb gëjë bëré bëre. diran bi war na tollu comme ñaata. 5 ans juroomi at. Mhm. bëré woo juroomi at. waaw lu waral lolu esaf lamb mo soxé mbeur promoteur la waxee woon rek lamb mo soxé lamb mo soxé mais gaay sa dimanche gaay bëré di kabar. non lamb mo soxé rek. mais mhm. bëré bi bëré bi da ngay xol ñan ñoy bëré hmm yow mbëri yi mbër yi nekk ci tuus bi ñoo gën a nekk ndaanaan mbër yi nekk fi ndaanaan yaa ngi ci tuus yi. waaw. Hmm. mbër yi ngay bëree. waaw yow boo duggee ci làmb ji ay fecckat ay bëre di. fecckat comédien yi. waaw mais mbër yi bëriwuñ. Ah. <laughs> mbër yi dëgg bëriwuñ mbër hmm. yi dëgg bëriwuñ. fecckat yay bëree. kon daal de wane làmb ji sooxe na. kon daal dañ jël fecckat yi favoriser leen ci kaw mbër yi. non làmb moo sooxee. waaw du favoriser de. Hmm. làmb moo sooxee mais bu làmb nekkoon làmb fa mu nekk ba tey. fecckat amu fa place. amu fa place. mbër yee mbër yee taxaw. tey boo xoolee mbër yi nekk ci ci touche bi yëpp. Hmm. tey comme comme la waxoon sànq comme ku mel ni Ndiaye Malick. waaw ñooñu ay champion lañ. Hmm. ku mel ni euh, euh, ay ñoom Arlem. Arlem nekk dem tukki. Hmm. ay ñoom xam nga. xam nga mbër mbër mbër bu mel ni euh, super étoile. ah. kii bu dëkkoon Thiès waaye ma la jor loxo ma waaw ñoo ñëpp tey ay ndaanaan ay uh-huh. ay ndaanaanu lamb uh-huh. tey booy bawol fu mu nekk waaw mu ngi États-Unis lamb ji waaw mbëri di ko teg ci yoon mm-hmm. waaw mais tey lamba sooxee lamba sooxee lamba sooxee uh-huh. juróomi at yi nga toog bëree woo ko métti na trop xanaa non méttiwul méttiwul déedéet yow man yàlla man natoo lamb man defuma sama bopp mbër de mm-hmm. yàlla moom moo def ay mhm. man xoolal fu ma yàlla teg rek man naa nga tegoo fa waaw parce que man conditionné wu ma sama bopp mhm. nekkul man maa yor suma suma dund mhm. nekkul maa yor suma ruux waaw nekkul maa yor suma wér-gi yaram lépp yàlla moo ko yor dëgg la comme fu ma yàlla yóbbu rek nekk noonu la mettiwul mettiwul waaw mettiwul ah. macha allah sant yàlla liggéey jaamu yàlla toppatoo sumay wajur waaw ndeysaan ñu gis nga def retour jël ki nga xam te mooy Ameth Dème di doomu Caaroy nekk ndaw nekk si yoon sa diggante ak Ameth Dème lu ñu la proposé la wala loo suwaa la lu ma la dañ la ko proposé muy sa diggante ak Ameth Dème waaw bi nga koy jël xam nga ko bu baax non xam naa Ameth Dème champion la hmm. Ameth Dème bi muy bëre man bëréwu ma déet waay non non ah Ameth Dème nee na yow yaa ko ma ne xam nga xam nga yooyu noonu jarul wax Ameth <laughs> ah. Dème bi muy bëree man bëréwu ma ah. man gabaar waaw Ameth bi muy bëre bëréwu ma déedéet kon yow lool ay waxu kii la rek. loolu garaawul. xam nga hmm. problème mooy que kii xale la kii du ci géew gi lañ koy géew gi koy xamee. géew lay leeree. waaw mais xam nga qualité yi nekk ci moom. xale du tenir xam nga xam nga ni am na ay qualité yu nekk ci moom du tenir ah. ay qualité ci moom. non ay qualité champion. Hmm. Ahmed Deme champion la Ahmed dem man bi muy bëreeg ay ñoom nu mu tudd. super jamono super jamono waaw amoon bari. jamono yooyu noonu. waaw bëreeguma jamono yooyu yàgg na. Hmm. jamono yooyu man dem di seetaan lamb. dem di seetaan lamb. lay walay kon daal lamb du maas ak dabante la. dabante la rek. Hmm. dabante la rek. Ah, mais fi nga toll ni ni ah. ndax combat bi nekkul risque sa carrière ci li nga gëj tok toog bëre ko. man dara du risque ci man. Hmm. barki sayidina mohammed aduna amul dara lo xam risque la ci man. Hmm. déggoo li ma la wax. <laughs> man sama lepp dama ko tek ci suñu borom. ci suñu borom. amul dara lo xam risque la duma ma ba tit man xamoo lu may ragal. ci sama aduna toog mhm. samay waajur am lu ñu manqué ma mën ko de defuma ko loolu kese laay ragal ci sama àdduna mhm. waaye amul leneen lu may tiit suma ma tëddee damay nelaw da ngay nelaw aw aw eh, àdduna amu risque mhm. sa diggante ak Amed a xaar lan xeex bëre xeex bëre mu ne mooy ndaw bu jour ba la fin li fay neex moo koy def mooy xeex mooy bëre mooy fecc mooy def lépp waaw bu ko neexee mu fecc nag waaw nee mooy bëre mooy daan mooy dum Eh. pecc bi moom dama koy bàyyee. Eh. gumbe ko neexee mu gumbee ndaw rabin saay naa lépp def lépp. Eh. mais bëri bi moom bu la nee mooy bëri mooy xeex. waaw day wax lu ko neex wax wax ju yàqu la. loolu wax ju yàqu la mais yëg nga ne caaraa Ma Ndione. waaw Coly Faye. Ah. deux. icônes yooyu ci wàllu làmb buñ ko ëmbee est-ce que leen gis sax ci làmb ji. Hmm. ah day leen gis man man Gabar. daal yow man xam nga kan gis. waaw man kii nga xam ne war naa koo jàpp daan ko rek laay gis. waaw hmm. ah, loolu day fulla ñoom de bëriwuma ñoom. mais non. ñooñu ñooñu ëpp ñu ma expérience. Issa Pouye. Ousmane Diop. Khadim Ndiaye. Ah, de. sëriñ bi loolu du combat. Hmm. boo bëggee dégg dëgg. mais xale bi dafa dafa dafa naqari deret. amul problème. Hmm. loolay neex. te nee na combat bi mhm. faw kii dina ñëw nu mu tuddee sax euh, mbayaar yi dina ñëw mhm. kii bi tamit dina yëngu gladiateur bi dina ñëw. léppay ñëw. waaw. mais xam nga lu ñëw. Hmm. moom miy defal bagage gabaar du ñëw. Ah, moom moo dul ñëw. mais bu ñëwul lu muy bëre. lam lumu lumu lu mu li waaw. di ko wax. Hmm. ko jëf. du ko jëfee. parce que dole Dème bu dee doole maa ko ëpp doole. déet waay. fuuf. waaw ñaari yoon. maa la ko wax tey dole yaa ko ëpp doole. maa ko ëpp doole maa ko daax a bëri. yaa ko daax a bëri. Hmm. waaw. àdduna ngi lay seetaan de Gaber. àdduna ngi may seetaan. bàyyil ba làmb ja. le vingt. le vingt incha allah. at bi ngeen seen diggante yéen ñaar. soobee yàlla. dañuy daje. ah nee moom foo nekk mu fekk la fa moom. du la xaar ci leen. ñaari attaquant la kon. Euh. Ah, kon bii day am. bu <laughs> bari na maanaam yow a utiliser daan burul loolu doo daan ah. loolu la wax. Mm-hmm. mais du doole bi du xeex bi. du bëre bi yow daal combat bi maanaam yow négocier moo la ciy génne. négocier quoi. Mm-hmm. xaw ma nag ñooñu loolu la ñu wax. waaw seen xalaat la wax rek. Hmm. xam nga ku nekk moom da nga koy d'accord ak xalaatam xëy dañ naan gabaar gi ñaa bëre. waaw perte repère. mais comme combat bi nga perte repère ndax dina la arrangé. non perte repère moom xalaatu ma a sax. Hmm. non non. arène nationale dafa yaatu de. arène nationale da nekk géej. yaatu na te bu gaa yi yuuxoo. <laughs> te gaa yi ne joor la. nan doon géej ñun géej waaye lañ dëkk. fi hmm. hmm. la baax. Hmm. Eh, foo toll ci la vingt ci wàccaay bi. pare nañ pare nañ. incha allah arbitre la ñuy xaar ah. foo toll ci wàllu mobilisation bi. waaw ñu ngi ci koom. waaw. ngay ni ko mbëri gëmee. mystique waaw. lenn dinaa leen ko xamal bu dee mystique moo may may ndam. Hmm. yàlla bu ma am ndam. Hmm. bu dee mystique. waaw sama mbër mbër bi may dajal. Hmm. bu dee mystique ko moo may may ndam. yàlla bu ma am ndam. dafa ànd waaw. waaw. ma la déggee non gëm naa mystique pour sama bopp man. ay muslaayu sama muslaayu bopp. mais gëmuma liggéey mbër. pour am ci ndam pour am ci ndam déedéet kii yaayam ak papam dañ koy yaakaar dëgg la kii avenir am njabootam dañ ko yaakaar lan moo tax may jël di ko liggéey di ko yàq pour lan hmm. làmb day jeex waaw quarante cinq ans tu es jeune hmm. mu jeex ah après la vie continue philosophie am yu bari amuñu non mais philosophie bi nag yàlla may na ñëpp xel da ngay d'accord mbaa nga bañ d'accord rek yàlla jox na ñëpp xel àdduna yàggul xam nga liggéey nit nu mu mel bal tànsi bi ngay jël dóor ko fële dina fa dal de. day répondre ñëwaat ci yow mm-hmm. te yàlla dafa fanku doomu aadama gis nga lii foo la ak ree mm-hmm. dañ daan jël suñu ngemb dem mbapat dem jëli ko te duñu yóbbu. benn bitel bitel. Mm-hmm. du xam sax mbëri ñee dajal. te yow ñu ngi seetlu say combat boo ñëwee sax ay takkaay sax doo ko am. non man sama muslaay. waaw mën naa koo jël gis nga làmb yàlla moo ma ko barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam mais du ma dugguma ci pour di ci def doomu aadama loo xam ne ëllëg dama koy layoog suñu borom. Mm-hmm. destin la mënul ñàkk la ko mais du ma ci def doomu aadama loo xam ne dama ci ëllëg dama ci layoog sama borom wala ëllëg day dellu ci samay njaboot. Mm-hmm. am na solo entraînement laa koy teg fonk sama bopp samay waajur ñaanal ma ma am samay muslaay ñëw taxaw ci làmb. waaw. Hmm? nu mu làmb en ni muy doxee quoi. waaw ni muy doxee day yéeme na. Mhm. yéeme na trop vraiment. fuite sponsor yi. waaw fuite sponsor yeeg xam nga ak yeneen ak yeneen xam nga. ñu bari na maanaam gars yi waaw combat xam nga. benn sortie ci Fadam. Mhm. nga wax maanaam ak noo xamante ne ñu bari xamee wuñu la ko. Mhm. attaqué làmb directement. waaw attaqué promoteurs yi ne booleetuñ ay mbër ay comédien la ñuy boole affaire yooyu est-ce que tamit loolu yow sa cër la ci làmb wala yow gis-gis boobu nga caw non loolu la parce que xam lu tax ma attaqué làmb attaqué wu ma làmb pour comme sabotage wala wax loo xam ne seen ne pa li may wax mooy làmb dañu war xool lu koy avancé loo ñu koy def mais làmb boo changé facette bi

mu neex xam na ni ñii ay champion kaamil lañ di jël ay comédien di leen daan mais loolu ci yokkute làmp la mhm. esprit boobu lan moo tax mun mënuñu koo amaat mbër yi nekk Europe mbër yi nekk États-Unis doon ay champion lan moo tax waruñu leen mën a convaincre xamal leen ne sport bi nekk seen dëkk yéen koy avancé loo ba mu nekk sport comme yëpp tey sportif amul benn sportif buy sport di rêve sport Sénégal mhm. sportif buy rêve Europe ngay reer Europe nga bëgg dem parce que xamul tax ñooñu dañoo defar seen sport mhm. defar ko ba mu ba nga xam ne képp ku jóg da koy bëgg mhm. comprendre nga mhm. yow mi fa dëkkul sax da bëgg seen sport ndeysaan ñu ñëwaat ci beneen point ah. mooy maanaam arène bi gis nañ maanaam daan sa mbër nga yàq nga daaj see sànni est-ce que message la ñi club en général. Ah, esprit mhm. c'est-à-dire euh, jeunesse jeunesse bi ñu am jeunesse violence que am da lay ñu jeunesse technique. ay jeunesse jeunesse agressif. jeunesse technique jeunesse fan lañ jëm ëllëg jeunesse buy defar réewam mais actuellement nii jeunesse buy yàq réew la ñu. Hmm. Euh, comme li sëñ Cheikh Al Maktoum waxoon rek nit eh, jóge ci occidentaux yi ñëw di yàq réew mi nañuy ñaan rek na suñu kilifa diine yi di ñaan rek xam nga euh, tension yi baissé wu vraiment nit ñi amaat yar parce que tamit yar daf cee am solo. nit boo yaroo boo ñëwee foo toog duñu la yëg booy damit duñ la yëg waaw yàlla nañu yàlla defal jàpp. yàlla defal jàpp éducation de base moom moo. moo manqué ci moo manqué xale yi. moo mm-hmm. manqué ci réew mi. taxawaayu CNG bi. taxawaayu CNG bi tey vraiment gisuma ci gisuma ci ay kii ah. suñ ko teg waaw c'est mm-hmm. waaw et puis loolu jàpp ni war nañ ko yokk ci làmp lu làmb gën a mën a améliorer mën a dem. luñ ci war a yokk daal mooy. Mm-hmm. di gëstu mbër yi champion yi nekk ci tuus bi. Mhm. di boole mbër yi ñuy bëre nañuy boole mbër yi ñuy bëre. Mhm. waaw nañuy boole mbër yi ñuy bëre et tamit euh, comme ni ngay waxee rek communicateur traditionnel yi ñoom dañoo bokk ci làmb. Mhm. ñoom ñooy bokk ñoom ñooy defar làmb. waxkat yi bu ñuy xool seen intérêt nañuy xool intérêt làmb. voilà am na solo. gaar kon ñu ngi bëgg si yow. jërëjëf rendez-vous bu le 20. le 20 allah Ahmed loo koy loo koy yóbbante. ah Ahmed loo koy yóbbante. Ahmed. waaw dama koy naan yàlla na nga ñëw ak jàmm. Hmm. yàlla bu la dara gàllankoor. amiin yàgg say mbokk. Hmm. ak say supporters. manit ak samay supporters ak samay mbokk yàlla bu ñu kenn yàlla bu ñu dara. Hmm. gàllankoor yàlla ñu yàlla aar ba ñu yegg si ci làmb ji. ñu bëre ma daan la ñibbi. incha allah sama open press lundi incha allah. lundi ah. bu soobee yàlla. incha allah bu ko kenn wutee na ñëpp ñëw. incha allah <laughs> euh, bi la. tund bi marché bees. marché bees tund bi. Ah, am na solo. merci Gabara merci beaucoup ciao. jaajëf. ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati ka